واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل أُنزِلَ إِلَيْكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم tubarkalla pour wax la ni nag doomu soxna yi ñu nañu góorgóorlu sanh thành là và nó sanh thành được tự nhiên dalil aku कि तुझे कोई गिरने टक्कर मार देगा उसको गिरने की जरूरत अलग है boo xam ne da ngay jóg rek ak ci moom ñu ko yàlla yi luy tuddee ay bu ko yàlla wax ak léegi ah yàlla ba mu ko ko wax ak léegi wa taayaha udunun waaye tax na kon bañ fàtte sa cër bañ fàtte sa wàll yàlla ku ne taxawu sa morom lu ci gàgg nu gàggante la mag ñi daawuñu xeeb bind seen lam ñi rafetul woon waaye daawuñu xeeb bind ah sëriñ Aline Gueye nag daf ma ni woon yéen bu ngeen jàngul jaaxal nit ñi ndax jamono am na ñu suñu jamono téere am woon yéen seen jamono téere am na te ñun suñu jamono téere amul bi ñuy ñëw ci oto bi dañu ko waxtaane ci mbiram rek mbiru Sëriñ Aliou Guèye li ko yàlla defal تبارك الله تبارك الله لك حالا واو وهي مدن فيو من يم رك لن يم وهي سيئتي تحنا قد عمي جدن سيئتي تحنا قد عمي جدن بو كتما dunia dan akhirat ini. Dua jam lagi, satu jam lagi. Bukan yang satu jam. Bukan yang satu jam. Satu jam lagi lagi. Bukan yang mana satu jam. Mereka itu bukan. Mereka Rijalu adi dunia Rijalu adi dunia kawan Sama darah dulu Mana kerjaan kau diberi jalan Yeah. yoo yëpp ngi fi waaye am na lu ko gën waaw juddu yi

ke keputusan Dan juga anda buat Anda minum selawat Yang saya ambil Anda rukun jelas Ah Ah Yang ini suñ bi yonent lay dee bu amee téere bi ci bindu turam yaa biram bi rek lay jaamu boromam jaamu boromam jaamu boromam jaamu boromam moom moom téere bi jaamu boromam foo bind yaasar bi loolu rek la def ko mel hamdaki goggiri kannala allah sharif ba wax woon ba mu ko gisee sa morom ma ni ko meloon daal doy na wax mu ni ko yataadabu ma alxaq yataadabu ma alxaq koo xam ne xam nga ni yàlla tiim na la doo yare di ko mukk koo xam ne xam nga ni yàlla tiim na la doo yare ci ku mukk waaw loolu nag mooy li nga xam ne moo ci ne fa tabarakallahu sunu xalaqi te ñu di yonent bi ñu di ci barkeelu ñépp di ci barkeelu tabarkalla boo génnee tabarkalla ku nekk ku nekk tabarkalla yi ban Dakar yi ñépp di barkeelu ndax yonent bi moo mel noonu waaw doo ko aj sax ci sa mët waaye ci mbëtam du koy ak moom tabarakallah ak ci barkeem rek di di ko di ko ñaan tabarakallah tabarakallah ñu di ci bàyyi xel nag bu baax a baax a baax a baax ndax yamunnuna alayka an aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فرق الله பரத்தல் dafa melni lu mu man ci doonit yàlla mën na mu ca taxaw waaw te taxawam rek mu am solo la waaw góor gi ku ni mbay dañ ko fal ku ñëw ni sëñ Babacar dañ ma fal def ma chef ba doon ñaan lu si ak itam pour nga sànni ma ay baati ndigal mu ñaanal ko ba noppi ni ko ah, ku yilif fukki góor de yilif nga sa fukki sang ndax am na ci koo xam ne bu ngeen wéetee xeex mu duma am ci koo xam ni jabaram moo gën a mën ngant sa jabar am koo xam ni bu ngeen sañ seen doomu gañe la di ko lim ba muy fukki góor mu ni ko kon nag ku yilif fukki góor yilif na sa fukki sang mu mel ni kon nag di ko fàttaliku wala kii fa inna zikra kon crise de mémoire du am ci kàttanu yàlla te kon it nit ki diggante ba suuf sam dara du ci mën a dox te lool rek mooy jàmm ji lool rek it mooy jiite ji waaye li ci des yëpp caaxaan la waaw ñu di ko def ak mu jot ci barke yonent bi di ko def at mu jot ci kattanu yàlla waaw ah, di ko bégee ndax guddi mbég la waaw di ko bégee ndax guddi di ko bégee la te ku nekk ak la ku nekk ak la ku am ku toll ni yonent bi ñàkkatuloo la waaw ku am ku toll ni yonent bi ñàkkatuloo la ransom benn mbokk ndeysaan dama faatu sax bàyyi ba ku ku ku lewet la woon nga bokk dëkk sa waalo ñu di ko wax ci ba bóotu xam ngeen ko moo jur Cheikh Tidiane Cheikh nag ku neex la ñoo fekk ma maa waxtaanam samay gan ñuy wax waxu yi xew ci guerre bii passé demoon nañu ba nit ñi amatuñu lu ñu lekk demoon nañu ba nit ñi ci tikke la demoon nañu ba doo gis fooy jëndee suukar demoon nañu ba doo gis fooy jënde paquet demoon nañu ba lamp bi tàkk ci mbedd sax dañoo bañ almaa yi ñëw bombardé ni waaw yëpp yëpp jaxasoo lépp ma ñu tudd nag

people di dunia. Dah. Dan ini tidak aman. Ini dengan kalian yang ini. Saya ingin itu. Sebab kalau keluar Bukan lepas nasib. 对。 по некоторым методам. Wahana yang dah Keyanan sini Sallallahu alaihi wasallam Fayar uci dezer Sa dezer nak benn ku jur yonent walla mu jur xakim walla mu jur gaamu raqaba الأخلاق والفكر يبدي لها بطلا أو زاهدا ورعا أو عارفا يتوخى عقبته لكنها رفضت أن يجمع الكل إلا تجد الكل fi am ñaari projet projet bu ñuy tuddee te yàlla xam na ni ñu ngi dox waaye du dox yi ñu wala di projet jàkk sejak ke Sembol

ko nag xam naa jikko wolof dañ la fay fekk ñoom ñëpp bu ko defee mu mel ni ëpp na la mu doon te ëppul la mu doon fii maa fi toogal Serigne Baba koy tere laa koy tere ku ñëw rek wax ko ne la ba dëgg yëfi wolof mukk waaw tabarkalla nag yal na ko yàlla yàlla defal li ci seen yéene mel ni kon nag du bàyyi ci xel waaw sëñ Babacar ko moom barke bu ëpp na lool في معاملة طيبة حسنة ممكن بعد كان كنا يين مرام يو كان كنا يين مرام جم كان كنا وقت دار مرام تبارك الله كان كنا سخلام بدل وكتي نبوك يا كار بيان النبي صلى الله عليه وسلم نمام لسنا وجري يا كارم نمام لسنا مام يسنا مام يا كارم بارك الله فيك بيت ينور قبل ما يأكل تبايا تبارو لأن تقولي تبع ملا وحنا لين في نهاش أبيرو فونداسيون موكو جيكي تبع ملا لتي دخيني فاتي تبال لك بس بولي موكو خيتي تبال لك موكو جيكي Touba bël ko file bind yu kenn xamul am na ci façon yoo xam ne yiwul waaw am na ci façon yoo xam ne yiwul dëgg la nag yàlla ne boo dee dimbale boo ko defee sirr baax na boo ko defee alaniya baax na waaye rek am na liggéeyam yoo xam ne teeyul teeyul mukk mukk mukk ganar ganar ganar ganar ganar du jeex rek loolu gën yiwul bàyyi ci xel ñu bàyyi ci xel tabarkalla tabarkalla ah maa ngi ci seen wet itam bu dee wàllu jàppale rek lu leen ci bëgg nu def ko kàttanu yàlla ne yàlla taxawunu rek ci ci des nag liggéey la rek ah ci liggéey la ci des liggéey la ci des liggéey la tubarkàlla noonu rek la ko defee yonent ba ngoog guddee ma ngoog jikkoo ma ngoog tubarkàlla ku fi toogit ba yor yor fekk la fi ngeen mottali seen waxtaan seet seen liggéey disibukkan. Dan jam dan yang tidak yang kedua nak <laughs> ambil naulek ini dia tahu mana naulek naman lemaknya pujuh lep tahu mana naulek juga nak ambil penyerang juga kuih suju menemukan di matul tazab kota pondok Kuma mereka kota pondok Saya lima tul gazam Saya sungguh Saya tu pondok bangun ha. Dulu di pandang wahyu dom Kuma nolaro itu ke jitu ha. Kuma nolaro itu ke jitu Kuma nolaro itu ke jitu Kuma nolaro itu ke jitu Itu ni wak Saya wahyu dom Tuan salah tuan salah na yàlla mottali yëpp te ñëpp fekk ko tabarkal lanu yàlla musal ci diisaayu jamono yàlla woyofal ko nu yàlla musal ci diisaayu jamono yàlla tabarkal la woyofal ko bokki daara yi fi daje yëpp ñu ngi ciy bët ndax daf fàttali daje ñooro ba tabarkal la tabarkal la ñëpp bokk te itam Lat Joor fu mu tuubee fu mu ñëwee ñooro ci tuub bi ma jaxate kala yëg ko fu ba lekkul ñu ni ko lu tax mu ni dama xam ni kajoor nitu ni ma bañ tau. صادق في ادعاء الدين لا للجور أم إنما همه في ذاك كرجور وجانجي قصيدة ببو جيخ دمي خمني نيو ملكا خمسين برو ndax tuuba ëpp kajoor tuub moo ëpp kajoor kon kajoor warul tax mu tuub na yàlla tax rek jeex ko yéenee kajoor yi mu jot waaw ba na kon nag boobuy liggéeyu jamono bi waaw yow daal xamal li ngay def xamal fi ñu ko tëqala بجدت أبو البن بن بن الصل بجدت أبو البن الصل لما لدي وخد تولو قرو دين تجنا أرجانيزا أنظر الماء كوكو من بكك بك بك بك بك كوكو من البكك بك بك بك Guru Dine Sejna Organiza Environment bu ko mën bokk ak moom bokk koog moom bu ko mënul bokk ak moom day ko jàpp waaw daanaka ndax Seydi El Hadj Malick dafa am lu mu def ba noppi firi ko te ci alquran yàlla nanguwu ko mooy dafa jël bagage am pour dem dëkkaali jeg yonent yi jël bagage yépp dem ba mu demee ba àgg benn góor bu yiw gis ko fa ñu ko foo dëkk mu ñu ko Sénégal la dëkk mu ne ko luy wut si fii mu ne ko dama dëkkaale si ak yow rek mu ne ko ma digal la mu ko waaw mu ne ko mokkal nga fatiha mu ne ko waaw mu ne ko demal ñibbi koo gis te mokkalu ko nga jàngal ko moo gën di farata nga ñëw di dëkkaale ak yonent bi yow loolu mooy sa farata te la ko waxe ni ko hada zamanu sukut wa nuzumu lbuyut qaidu lxaq yudrabu binnabut ni ko fii jamono jamono tëj sa gémmiñ la ak taqoog sa néeg bañ ko génn ci ndax kenn nangootu la dégg dëgg ku dégg dëgg rek jël yan Maodo takkaat bagage am bu jëkk xam ni nisër la te yàlla wax na ci alxuraan ni mottali leen nisër dama waxoon ne dafay dëkkaale yonent bi waaye terewul waxi góor ci dugg na ko ba tax nisër ba mu bàyyi ko ñibbisi waxuma ni ku ne jàngal na la fatiha waaye liñ ci jàngale tabarkàlla yàlla ko yàlla gën a barke waaw loolu rek mooy li nga xam ne moo ci def hada zamanu sukuti maa luzumi buyuti qaidu lxaq yurfa duna ajji waaw bu mel ni kon nag façon boobu rek mooy mën a dox waaye yi ci des nag daanaka rek jamono nangootu ko yi ci des jamono nangootu ko te ku mën a sa njaboot nga digal sa njaboot rek yàlla amee barke dégg te ku mu ci barkeel sa noppi di ko dégg waaye jamono bi dafa soppeeku ba mu ëpp waaw ba soppeeku ba mu ëpp te fépp la soppeekoon foo dem rek fekk ko foo dem rek fekk ko nga xam ne mbir yàlla waaye du tee li Maodo daan wax ni li yàlla bëggoon la bëgg ba tey rek ci jamono soppi ko yi mais la mu bëggoon la bëgg ba tey rek te mooy rek ruuxi taqdir nga am ko lu ne nga xam fan koy yëpp te bañ ko paas lu ne nga xam fan cay yem te bañ ko faat lu ne nga xam fan fan cay ku war a yem te bañ ko faat soo rek mooy li am solo ah yéen a ngi ànd daara daara ndax mu tarsi déen wa mu tarsi daan daara la tabarkalla tabarkalla daara sëriñ babakar ndax ëpp naa xeet ma benn waay bind démb leetal ma ni kii de signatuream du jar na lu ne mu matale ko mustar si biir ma góor waaw am solo la